daayiratul fadli buñ fornome war ngay sant yàlla ñun la jigil kasalada sidi bara aoudu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa salli allahumma ala sayyidina muhammadil fatihil khatim nasil hadi wa ala alihi qadri miqdar azim radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah yaa amat cheikh uxduri lana bi hada almahdari wal taatafi bi nadratin tatina bi zafari ñu ñëw ci suñu darsu nasiha démb ñu ngi yemoon ci li zununil misri wax mu ne wa man kushifat lahu an xaqiqati zaati alzamatul atab yàlla wax na ne képp koo xam ne uñetti na la sama dëgg dëgg jëmm ji mu ne yow xalkaande moo lay ñeel maanaa dinga sax ci xalkaande mu ne faxtir ayuhuma shiita tànnal nag ci ñaar yooyu ban moo la ci gënal al adab awil atab maanaa teggin wala halkaande teggin bi lim ci jublu mooy ki nga xamante ne yàlla uññati na la meloom yi ak turam yi mu ne yow dinga nga taqoo am nekk ku am yar waaw moo tax foo gis ku am yar rek ku xam melu yàlla yi la ak tur yàlla yi dégg nga mu ne waaye képp koo xam ne zaatu yàlla bi nag moom moo la feeñu kooku da dangay dangay ngay xal ko dëgg la waqiila wax nañ ne madda ibnu ataa rijlahu yowman bayna ashaabihi ñu ne benn bis ibnu ataa dafa jël tànkami mu tàllal ko ci kanamu ay taalibeem ay saxaabaam nga gis ne ndeke xataa muqaddam xaddam bi sax war na am yar war na am teggin ci kanamu ay taalibeem waaw dinañ jàng gis di gis taarix ibnu ataa bi ibnu ataa dafa tàllal ay tànkam ci kanamu ay ay taalibeem après mu ne tarkul adab bayna ahlil adabi adabun mu ne bàyyi teggin maanaam nga ñàkk teggin ci kanamu ñu am teggin mu ne loolu kese rek yar la mu loolu kese rek yar la loolu rek teggin la waaw maanaam di di ci yaroo parce que waxtu wo eh, ñàkkee teggin ci kanamu ñu am teggin ñoom dinañ meloo melokaan boo xam ne melokaan boobu moo lay corriger loolu la ci jublu waaw mu ne way shaduli haadihi alhikaaya alxabar alladi rawa anna nabi sallallahu alayhi wa mu ne lii seede xikma boobu lii seede xabaar boobu man na xikaaya boobu mooy nettali boobu lu koy seede mu ne xabaar nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana indahu abubakrin wa omar benn bis eh, eh, seydina abubakrin ak seydina amar dégg nga dañu mos a toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa daxala Ousmane waaw booba yonent bi poojam bi mu ngi génn mu ngi feeñ poojam mu ngi feeñ mu ne bi seydina Ousmane duggee rek dañoo gis ci saa si yonent bi defaraat maanaam pooj bi muur muur muur muur poojam bi moo tax ne fa xattaa fuxdahu mu muur poojam bi wa qaala mu ne moom yonent bi allah astahyi min rajulin yi min al malaika mu ne xanaa du mu rus góor goo xamante ne malaakay sax dañ koo rus xoolal yonent bi sallallahu mu ngi toog tàllal tànkam ba pooj bi génn muurut ko waaye Seydina Ousmane dugg rek mu gaawante rek muur tànk bi yaa ngi dégg mu ne xanaa du ma rus góor goo xam ne malaaka yi sax dañ koo rus te pourtant Ousmane su yéegee ci boobu maqaama mu dem ba malaaka yi rus ko yonent bi salaahu salaam moom moo tax waaw yonent bi moo tax waaye xoolal nim mayee respect yonent bi salaahu nim ni ko yonent bi salaahu salaam mayee respect nga jàng ci ne kon yar du firi rek taalibe bi kese waaye xataa njiit bi sax moom itam dafa war a am yar dafa war a am teggin ci kanamu mbooloom bi yaa ngi dégg parce que mbooloo mi ci moom la ñuy jëlee yar kon dëgg-dëgg war na mën a am dëgg euh, euh, euh, yar moo tax yonentu wax ne la yi xanaa du ma rus du ma may kersa duma am kersa min rajulin ci góor goo xam ne tastaxyi minhu almalaayika même malaaka yi sax dañ koy rus dégg nga sallallahu alayhi kon loolu ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel jëlee nañ ci imaamul junaydi radiyallahu anhu jëlee nañ ci junaydi radiyallahu anhu junaydi mu ne iza sahat al mahabbatu sa saqatat shurutul adab mu ne waxtu woo xamante ne nag mu ne e, mbëggeel wér na mbëggeel su wéree dégg nga mu ne sartaay teggin sartaay yar adab sart yi day daano waaw sartaay adab day daanu maanaam nit ki soo bëggee dara dégg nga mbëggeel gi wér mu ne dootoo ci amati sago dootoo ci am yar dëgg-dëgg yar bi nga bi bi nga waroon a am waaw loolu nag dañ ko bàyyi suufiyanke ñu firi abu usmaan wax na ne ida saxat al mahabbatu ta akkadat ala al muhib mulaazimatul adab su fekkee ne mbëggeel wér na mu ne loolu day dëgëral ci ki nga xam ne moom lañ bëgg maanaam ci ki bëgg kon ci ki bëgg maanaam dafay dëgërël ci ku bëgg mu taqoo teggin maanaam soo bëggee yonent bi salaahu salaam dafay tegtale na yow da ngaa war a am teggin ci yonent bi da nga war a am yar ci yonent bi salaahu salaam kon boo bëggee dara loolu da nga da ngay yaru ci kanamam da koy respecté waaw lii nag njàngale mu yaatoo yaatu la waaw am na ñoo xamante ne boo boo boo boo boo yaroo seen kanam dañ lay jàppee ab dof waa wala dañ lay jàppee ne kii sans ñun du tekki dara waa te fekk xamoon rek mbëggeel rek la mbëggeel rek moo tax nga yaroo noonu dégg nga ndax koo bëgg doo bëgg a ko ak moom te lépp luy def ngir nga ngir nga tàqale ko ak moom yow dootoo ko bëggati def. waaw loolu nañ ci bàyyi xel boo demee ci nuur yi moom dafa wax ne man lam yata addab lil waxti mu ne fa waxtuhu maqtun waaw mu ne képp koo xamante ne amoo teggin ñeel sa waxtu sa waxtu wi amoo ci benn teggin mu ne yow sa waxtu wi moom maqtun maqtu nag euh, dafay firi ñaari anam dafay firi koo xam ne dañ koy mere waaw dañ koy mere maanaam waxtu bi yëpp dañ ko ci mere boo ñàkkee teggin ci sa benn waxtu waxtu woowu yëpp dañ la ciy mere waaw waaye maxtu itam dina firi ay jamono eh, koo xamante ne maanaa sa baay dafa génn àddina nga ñëw takk jabaram ci jamono jaahiliyatu daan na am waaye loolu islaam moo ñëw xaraamal ko waaye avant islaam avant yonent bi sallallahu alayhi loolu daan na am léegis koo xamante ne dafay sëy maanaa baayam dafay dafay kii maanaa dafay sëy ak soxnaam ba baayam génn àddina mu ëlbatiku takk soxnaay baayam waaw loolu daan na am waaye islaam moo ñëw xaraamal loolu noonu mu ne kon du wax ji du mën a firi loolu wax ji li muy mën a firi kon mooy koo xamante ne sa waxtu wi yarwoo ci mooy waxtu bi yëpp yow dañ li ciy mere waaw zununul misri radiallahu anhu wax na ne ida xaraja al muridu an isticmaali al adab mu ne fa innahu yarjiu yarjiu min haysu jaa waaw mu ne bu fekkent ne génn na murit bi taalibe bi su génnee dégg nga maanaam mu jëfandikoo teggin waaw taalibe bi su génnee mu jëfandikoo teggin maanaam mu ànd ak yar teggin mu ne fa innahu naka kooku yar jiw dina dellu min haysu jaa fa mu jóge ko woon kooku lu mu yàgg yàgg dina delluwaat fa mu jóge ko woon kon nga jàng ne képp koo xam ne yaa ngi génn ak ñàkk teggin. boo moytu dooto dellusiwaat fa nga jógee ko waaw dootoo dellusiwaat fa nga jógee ko loolu nag kenn ku nekk war na ci eh, eh, bàyyi xel su ko defee balaa eh, wax ji di gudd ñu tënk foofu noonu incha allah li des ci buntu adab bëriwut waaw quelque kii la rek incha allah ñu bu jeexee ñu dugaat ci yeneen buntu incha allah allahumma salli ala sayyidina muhammadin xaq qadrihi wa miqdaari lazim وأموات حسودنا هذا سيدي ملوك والأعداء دعوة القوم مثل باتر سيد دعوة الخير دون الأنواع بزيد جاري هلينا بخدم لقومه يرزق ما دام أتاهم يبدو صوتي هنت له مطلع هذا ما هو غير السماء دينها ما شد في ذاته به لو جاء بأبينا بخدم لكونه بها تتحر صفاته لقيومنا لالتقاء من له الأولياء بالفيض جاء بأبينا بخدم لكونه بها هنا تدهرت قلبه كان يدعى لنا منا فبها بزيت تجاه أمنا بقدر لقوله ثم كان الإمام ليس يسيرا نصره عندنا وهو النمران إن في في اجتماع قوم النذار ليس هذا ينتابه الأمناء دائرة الفضل kuñ fa nommé war ngay sant yàlla ñun lañ sigil kese la doom si di baram